léegi Boubacar euh, on a eu ce débat là sur la sur sur, sur l'endettement du Sénégal, du euh, mois de juin le 4 juin euh, Bloomberg nous apprend que le Sénégal a a a, a levé 450 euh, milliards sur le marché des des des des, des eurobonds mu nekk loo xam ne dafa surprendre. Euh, sénégalais yu yu yu yu yu bëree bëri. Euh, yow est-ce que ça pose problème. alors man li ma pose problème ci loolu c'est la communication. c'est-à-dire. pour man euh, débat wu affaire u eurobond euh, dafa soulever woon Sénégal. Mm-hmm. parce que quand même président Wade moo ko njëkk a def ñaari émission président Macky Sall def quatre émissions ñoom ñu koy bàkkoo yow nga ne baaxul. déglu rek tungu ne du teew ñuy natal. non dama lay fàttali rek. loolu jarul fàttali. senegal <laughs> yëpp nee nañ ma il faut nga wax ci eurobond. <laughs> kon nag kon nag dinaa ci wax. ñu koy bàkkoo ma ne li ngeen di bàkkoo musiba la xeetu leb yi gën a bon. ci pays yi ñu yore nii mooy eurobond parce que bi ñu koy concevoir ay euro obligation la pays Europe yi seen bopp ñoo ko defar di leblante seen biir fonds xaalis bi nga xam ne dañ ko am en surplus yëpp la ñu dajale dangay leb ci devise boo xam ne du sa devise u euh, du sa devise u dëkk boo ñëwee leb ñoom bu ñu xool ndax am nga signature ak amoo signature ak est-ce que am nga ratio seen yoon nekku ci argent liquide bu tax xepp lañ lay jox defal la taux bu élevé ba pare ñefe ak yow pour am maturité bu gàtt balaa ngaa gis ñu commencé def maturité ay euh, sa délai bi nga war a fee balaa ngaa gis ñu yegg ay dix ans quinze ans rek day fekk ñu tàmm laa lebal jox la xaalis ba nga xam ne ñoom dañu am surplus xaalis boo xam ne day wuñ ko dara ba pare nag derrière ils sont tellement armés mënoo rëcc fenn mënoo fay te bàyyi rek mënuñu ci dara bàyyi rek toujours dañ lay artu Sénégal jël na 2018 eurobond ba Bayeeri na ko léegi xaalis bi. doo koy doyee da nga koy denc pour pour prochain budget moo tax contrainte la financière boo xam ne bi pour les pays sous-développés dañ koy éviter dañuy bëgg a jël ay taux concessionnels parce que mën na la handicapé moo tax baaxul baaxul woon daaw baaxul ren du baax déwén. c'est une mauvaise option. c'est une mauvaise option eurobond. léegi boo ko jëlee maintenant il faut l'utiliser de façon optimale am na noo xam ne boo ko utiliser boo muusee mun nga ci génn bu fekkee da nga koy investir ci loo xam ne day produire xaalis rapidement loolu fay. mais mais mais sur la nature de l'opération d'abord c'est-à-dire. 450 milliards avec un taux de 7,75 dinaa ñëw ci et un taux de maturation très court. non non non dinaa ñëw ci opération bii ñu def nii ñële dañ ko doon def def ko yoonu tool boole ci ñàkk jom boo xam ne di jël montant yoo xam ne di ko bàkkoo loolu laa woon nag sama frère Abdou Mbaye Abdou ah, Mbow boo xuloo ak moom mu ne ma def nañ ko ñoo tane ni ko war a defee woon waaw am nañ taux bu gàtt am nañ taux de maturation c'est ça c'est vrai ce qu'il avait dit loolu c'est vrai mais dama ko ne façon ngi leb boobu ku ci ñëw di bàkku xamoo la xew parce que baaxul c'est la dernière de choses à faire ku ñàkk pexe moo koy def mais boo demee ba koy def aussi boo koy utiliser da nga koy utiliser ci loo xam ne lii loolu muy produire mooy fay yow avant sa maturité di jot fekk fay nga ko parce que taux bi dafay élevé parfois te maturité day gàtt te état mënoo ko lebal ni ngay lebalee nit yow moom boo demee banque di nga am 7 5 pour nga am ay truc ay ay 9 non non ay ay ay am na eurobond yoo xam ne fii ay ay 9 et pour cent la 9 8 pour cent sans rendement parce que da nga ciy boole yeneen frais bu ñu nee par exemple 7 virgule 75 pour cent la rendement bi ça va être autour de 9 virgule 05 parce que y a d'autres d'autres frais qu'il faut faire donc loolu ni ñu koy utiliser mën na rattraper. le fekk nga recourir ci mais pouvoir bii passé dañu jël endettement def ko seen affaire ku nekk di kaas yéen a ngi ci plafond ba ñu naan garaawul mbëkkaguma miir bi dina baax ak ba finalement ñu bàyyi ñu fi li ñu fi bàyyi xam nga loolu du exemple